waaw mbégte ak euh, ak satisfaction euh, de sant euh, de population du département de Mbour nous nous ni particulièrement les maires du département le président du conseil départemental les élus nationaux locaux notamment les honorables députés ñëpp les services administratifs nos xarit yi sunu mbokk yi sunu final final nag yàgg na ko organiser muy rafet mais defe naa ne bii moom moo ci moo ci dàq waaw ñu ngi leen di sant di leen félicité ci organisation bi ah ñaari équipe yi football nañu gis ngeen ko football bu am solo bu rafet ah euh, Pastef engagé nekk euh, def fi football bu am solo bu déterminer waaye nag euh, yàlla mi nga xam ne mooy joxe ndam jox na ndam bi ASC le mi nga xam ne moom tamit wax dëgg yàlla accepté na défi bi nga xam ne posé woon nañ ko ko ba nga gis ne ñoom ñoo gagné ci tir au ñu ngi félicité ñaari ASC yëpp. di ñaanal euh, ASC Relais bi nga xam ne moo gagné yàlla na ko ndam bi jik di masawu aussi ASC Pastef di leen ñaanal beneen yoon ñu am ndam incha allah di gërëm nag jeunesse bi yëpp nag parce que gis nañu jeunesse bi ni ñu mobilisé woo jeunesse politique bi euh, mobilisé wu COJER euh, communal COJER départemental mais vraiment kontaan nañu si gërëm ak sant force de sécurité yi nga xam ne ñoom ñoo tax tey ku tëdd sa kër wala nga xewle boo buggee jàmm

waaw incha allah ci ay fan yu néew bu ñu expression de besoin yi dinañ xool nan la ñuy def au niveau du ministre des sports mais aussi au niveau du président de la république nan la ñuy def ba indi ci ay solution parce que Mbour nag mérité na stade bu mucc ayib ku nekk xam na déjà première division Mbour rek moo fi nekk département bu am trois AS euh, équipe yu mekk di jongante ci ci première division donc loolu day wane que Mbour nag football wax dëgg yàlla fii euh, am na fi bax bu am solo donc incha allah loolu dafay war a jur leneen Euh, Platform sportive warna war nañ ko améliorer terrain yi war nañ ko gëna a baril ba nga xamné talent bobu Mbour am dina gëna mëna éclore mu nek njariñ ci Mbour mais aussi nek njariñ ci nation bi parce que buñu amé ay footballeur yu bax équipe nationale lañuy dem xam ngeen ne karambooj ci doomu Mbour yi la lamu taxé won équipe nationale ñep xam nañ ko donc buñu continuer dinañ am ay karambooj yenen té lolu njariñ lay am ci dëkk bi njar euh, am njariñ aussi ci Sénégal olof Njaay na réro amul ñaka a waxtaan moo am xalé yi wax dëgg yalla nak ñun ñep responsable té nañu né xalé yu am yar lañu pour l'essentiel xalé yu jub lañu xalé yu gëm président Macky Sall lañu xalé yu and ak président Macky Sall jouer rôle bu am solo ci réélection président fi ci deuxième mandat donc lolu euh buñu waxé dañ leen di déglu té lolu lañ def responsable yépp dañ ma woo né ma wol xalé yi nga toog ak ñom bima ma ak ñom aussi gis nañu né wax dëgg Yalla liñ doon wax ñun ñëpp dégg nañ ko xam nañu né aussi réalité la waaye réalité bu law la parce que Sénégal yépp nak xamna né euh, demande d'emploi bi mom bari na

ba yàlla defal ko li nga xam ne ko ko ci premier mandat bi mooy ay réalisation yu am solo mais bien sûr euh, ODCAV euh, sunu ay xarit lañu ñun ñëpp produit nawetaan lañu ñun football nañ nawetaan nekk ci ay ASC nekk président ASC donc ODCAV moom ñu nekk parrain ak ñu bañ a nekk parrain dañuy ànd ak moom parce que loolu mooy sunu wareef te it nag ñu nekk ñoo xam ne dañu ko mérité moo tax ñu ngi leen di jaajëfal di leen remercier ci confiance bi ñu am ci ñun ba nga xam presque chaque année finale départementale bi mën lañ koy parrainer ñu ngi leen di gërëm di leen sant et puis di leen wax ne tout le temps suñu disponibilité pour ànd ak ñoom pour que lii nga xam ne ñu ngi koy doxal Orcave, Thiès di ko doxal ONCAV Sénégal di ko doxal sunu loxo di ci dugg ba bu ñu ko organiser rek mu nekk organisation bu mucc ayib.